soo demoon ba nekk ki gën a kawe ci tolluwaay ci nit àdduna bi nit ñépp nga féetu leen kaw ci wenn wàll yit bu bum tax mukk nga fàtte sa xarit bi nga xam ne moom nga amoon ba nga nekkagut foofu ba nga amagul loolu ba nga melagul noonu ndax amaana sax moom moo la encouragé woon moo la taxoon a sawar ci li nga dugg di la ci jàppale it ba nga agsi ci fi nga ci agsi moo xam ci alali àdduna la moo xam ci xam-xam la moo xam itam ci beneen anam boo xam ne buy jëmale nit kanam la amaana ki nga njëkkoon a am comme xarit te boobu milago neen moo la doon soñ ak di la jàppale ba nga agsi fi nga agsi mu ne kooku foo mën a àgg ci kawewaay bu ko fàtte ndax képp xaritu am am wala réussir rek tax xarit yi ñëw bokkul ak xaritum nit boo xam dafa nite te danga koo amoon ci jamono yu njëkkee waaw loolu lu mën a lu mën a xam ci jamono ji ñu toll la bari yaa na koo xam daa dem nekk ci beneen e, tolluwaay bokku tëj ba mu njëkkoon na ne ñu bees ñu wut si ko taxaw temm ci nuñ ko tàqalee ñu njëkkam buñ ko tàqalee ñooña ba des ak moom nag dañ koy sixatoo boo tuul lam amoon foofee la koy ñàkke ndax ñooñu ñëwuñu pour ànd ak yow ci sincérité waaye dañoo ñëw pour ànd ak yow ndax li nga yore lool rek lañu ñu xekk ma doon jàngal tey ñu bañ a fàtte mukk rek julli ci yonent bi tala sallallahu alayhi wa tey jii wa sallallahu ala muhammadin la jël ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamu aleykum wa